Happy birthday to you. Happy birthday. ko waaye ay na toj na fi bàyyi jëkkër ndeysaan bàyyi jëkkër ndeysaan bàyyi jëkkër ndeysaan ndeysaan ndeysaan loolu. ci sama chéri sama góor sama xarit. bilaay. ah kado yi kay kay de xaar xaar xaar nga joxe kado yi boo baaxee ñu ko tey li nga yeewoo doy waar. mais baax rek moo am solo. ma ne ko ku baax. ku baax rek. dafa doon jóge Mbàkke. ah di taaw. di taaw xam nga ni fi mu ne nii yaay yaay. waaw fi nekk fi yaa ko nekk. waaw nga baax lool. jàppale wu jàppale wu. sama man kii. ando. waaw te am nañ ko tuddee. sama kii am nañ ko tuddee. ci nga bokk. yaa may dégg ñii fi daje ñëpp tey sa mbaaxaay bee tax ñu ñëw. bi laay dégg la. mbay kii. baaxaayam tax ñu ñëw luñ la lebal la bor buñ la fay la waaye yal na yàlla defal jàmm da nga dugg nag sama kër ndax man daara laa juddoo sama baay nekk sa lingeer xanaa ñooy jolof jolof jolof ma dugg yaa jolof jolof bu caawaay ah kontaan nañu nii nga am boo amee seen da koy teral waaye anniversaire matinal maa ko soog gis anniversaire fajar fajar ne en 1969 du ma xale mais fekk naa lu bëri mais anniversaire matinal non lii moom musam dara yàlla ko jàmm amiin moo nekk jaaju ndeysaan mais booy. lépp nga taal la. wala gaañ. koy gaañ. waaw dama la wax ak yàlla ma la wax. dama lay dee maa ngi seetlu baax dama lay dee. ndokk la ci anniversaire. nga fi de Aïda. c'est que anniversaire ndekki moom. fii mooy Jolof ah mais Aba mais amis traiteur maison d'amis ah lii doy na waar lii ngeen defal sama waa ji ah kenn du yéen maa ngi nag fu ne la ñuy daje ci fu ne la ñuy daje waaye li ma war wax ci yéen yëpp bàyyil ba seen patron def yow ma yow faal ma doo wax ci yéen war a wax ci ndax li war a wax daa bari kenn du yéen waaw. ñëwati ne eh Kouthia ñëw na. tey Kouthia. ndeysaan. sa baaxaay tax ñu ñëw ak sa ngor ak sa yar ak sa teggin ak sa bëgg nit yàlla yàlla dafa jàmm fi nga dugg nag jolof nga dugg diggante Linguère ak Daara Jolof ay doomu jolof fekk fii ay mbokk daara jolof nekk fi yàlla yàlla defal jàmm ñu bokk jolof nag ñu bokk suñu jolof alaaji mbay ngay fay moom nami moom frère ba yàlla yàlla defal jàmm kii ku baax kii ku gën la ku yaru ngi nii ku jàpp ñaamuram ku am kersa ku dimbali te yàlla def yàlla yàlla defal jàmm yàlla dama ne mbay bu gisee ku baax danga koy jàpp kii daa baax te tax kii kii lay defal te du ko wax moo yor sa sutura kii bàyyi ba lamp yi tàkk projecteur yi tàkk muy def kooku day wane yow doo grand théâtre ndax lamp yi day tàkk yow ci sutura ngay def kaay ma gis la booy dem nga bokkal ko nit da woo sax am kersa parce que da nga koy laaj ndax yaa ngi ci jàmm ndax yor nga yaa xaritam macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan yàlla nga koy fete ay at. amiin amiin macha allah. macha allah. nee na ko complot. Abba. muy Mr Diadio Abbas surtout suñu takkayta bi chéri First Lady Fatou ak Aïda Samb surtout Samba bi boof téyem ñoom ñaar ku ne wax na sax ba jooy boo gisee gaa ya tim tim baa ngi nii tim baa ngi nga ñoom itamit dañ ko fas defal surprise lii rek la ko mën a defal surprise wax na ba ne xaw ma lu ma ko mën a defal bii nag moom moo rëy nag surprise bi mais ragal mu ci ginnaaw ci taxaw waaye rek waaw waaw heure bi daa léegi naa fi mu ne nii di di sangu nii. ma ne moom la Mamady ma ne neen leen Aïda mu laaj ko ci lan. Ah, fajar gii. sama yaay jàngi. Oh, tey yaay. yaay na de. mais loo surprise bi. ah kontaan kontaan ci sama chéri sama càmmiñ waaye daal dañ ko war a woote de moom koy bii mu woy moom la barki yàlla mooy daal dañ ko bu mag bi mooy daal dañ ko bi bu mag bi moom toj na fi de barki yàlla toj na fi de lii doy na waar trop waay surprise bi Thank you. mais les traiteurs mais booy mais mais mais mais bii ban maison la. maison Amise. maison Amise. macha allah macha allah ah c'est góor góor ngeen ne. mais jolie maman. si si. su loolu nee. namm la. saa nañ. mais père. mais fils. père ñëw nga de. mais fils comme carrément. ah. mais père surprise bi ñu nar defal sa waa ji nii doy na waar de. waaw mais xam nga euh, déggoo ma ni ma ni ay dër. Mm-hmm. li caane wax ne lii day jéeg bu baax ko mën. ndeysaan. bii heure. fajar gii. man heure bi maa ngi xam. àdduna yëpp xam na ne heure bi damay nelaw. mais. loo gis lu ne dafa am lu ko lu ko waral ni mu mel a tax nga nag euh, nit koo xamul noo koy def ni mu la defa tax kër ci démboo njaay avant-hier la ñëw kër gi moom ay def indil maam njaay ñetti mbubb yoo xam ni boo yoon jënd jar na quatre cent mille la defal ma ko man i tamit te chaque année mu def ko Euh, comme nga xam na ni at bu jot man du ma jënd yëre korité du ma jënd yëre tabaski ndax Abou Guèye lu ñu dénk caane mais moom i tamit mi ngi koy def moom ay def mais nag ki ñu def ki ñu koy defal a suma xarit bi nit ku yaru kii nit ku baax kii nit ku. ah mais ah kañ yéen a ngi fi. depuis kañ ñu ngi liggéey Sénégal. non kañ yéen ngi fi. teel ngeen a ñëw de ah? mais noonu. pour ci surprise bi rek. voilà noonu la def. mais ku leen soxla nu def. Euh, da def ci 78. 100 64 31. 164 man soxla naa leen de. sama yaay dafa dem Màkka te day ñëw. waaw damaa bëgg dama ko bëgg a teral. Thiam maison Amis. waaw waaw waaw waaw fu ne la ñuy daje fu ne la ñuy daje. Penda lan xew ah daal di bëf de. You're not happy today? You're happy? Oh, yeah? So wish daddy happy birthday then. You're not gonna miss him? You shy? Oh my God. No. No, masha Allah. Amin. te mu dee barke sëñ Bamba li mu ceeb ci kër gii kenn oh. moomu ko. Uh-huh. moom ak doomi jullit yi ak seen ñoo ko bokk. dëgg la ñun ñaanal Pape Dé bi uh-huh. yàlla na ko sari déet. mel ni mel moo yées tu waaw. kontaan nañ trop kontaan nañ trop. ñëpp a kontaan mais Mamady mais Lamine Abass Diadio mais Mamady surprise bi doy na waar de. non doy na waar. sa waay war a yeewu nii rek jàkkaarloog nit ñi jàkkaarloog yéen ah. ngeen jógee Gambie uniquement pour ñëw surprise ko nii. ma ne ko Aïda Kañ def na yëpp macha allah. ndeysaan ñu xoolee Gambie bi fii. ndeysaan jëkkëram. manqué wul dara. ndeysaan xamul bu muy defar jëkkëram. Mm-hmm. lii rek la ko mën a defal pour ngeen di bëggal xolam. ndeysaan surprise ko am di jàmmaam yi ñëw xaritam ñëpp fekkee mbokkaan. ndeysaan macha allah di ko ñaanal rek yàlla gën leen a boole. ndeysaan amiin. am si njaboot bu barke. amiin amiin yaa si saraatul mustaqim. macha allah waaw. Abass moom di ko gis happy birthday rek chaque jour rek. dëgg di ko ñaanal loolu laa ko dee wax loo loo mun déwén yàlla nga ko parce que yow soo amee ñëpp am. xëy na nit ñi na xamuñ. waaye yal na yàlla xet doole. baas ndaanaan la ah. kenn du moom. yi noonu la demee ah. am na ñeneen ñuy ñëw nag xam naa ci surprise bi mais nag ayda ah, Aïda moo teralee lii jëkkëram ah a ngi ci biir di nelaw waaye nag lii doy na waar ndax. tey Abbas nan lay yeewoo dajeeg affaire yi sama waa ji kaay fii ay traiteur ah, nan lay yeewoo ah dajeeg affaire yi nii ah nekk ci biir di nelaw yeewu jabaram defal ko lii muy surprise boo xam ni macha allah macha allah macha allah surprise boo xam ni kontaan nañ ci lool ah ay xaritam jóge Gambie ah ay xaritam yi ne fii ay nitam yi ne fii ñëpp war a ñëw. te xam naa ni ay da organisé na yooyu yëpp macha allah lii moom sant yàlla la parce que sëñ Bamba. ah ni ngeen ñu nii daal surprise bi. ndeysaan surprise bu ma ko wax nii yëngu si dara di koy dafaa rek. génn rek yam ci. waaw a jóge Gambie uniquement. lii rek yéen tamit pour surprise bi. waaw kon day moom bu yeewoon nii rek ci la leen di teg bët yéen. teg bët ah? <laughs> mais yow yow Abass depuis kañ yéen a ngi ànd waaw waaw yaakaar naa ñoo xamante léegi. ndeysaan pour ça yaakaar na trop. ndeysaan ku baax la. waaw ku baax la. Mhm. Abass daal ku ko jege daal nga xam ne daal. ndeysaan macha allah. ndeysaan waaw ndeysaan. daal xamuñ fayam daal. ndeysaan waaw yal na waaw MD waaw. looy sànni ci bis bi. ah danaa kontaan. ndeysaan. parce que ñun depuis bu ñu euh, Aïda wooyee. Mhm. mu wax ñu lii mu ne surprise la. Mhm, surprise. soo loolu tax ñun tam. ma ne maama di nañ try mhm. ñu dem ñu surprise ko mhm. parce que aduna sa soxna su demee ba am xalaat bi mhm. ah loolu moom sant yàlla la dëgg la te Abass ah ñun kay luñ koo ñaanal mooy fan bu gudda ak wér gu yaram macha bu baax la ndeysaan man maa moom ay liggéey maay directeur société bi ndeysaan eh, am nañ léegi juróom ñaari at ñu ngi liggéey oh, macha allah mosu ñoo am problème. ndeysaan ndeysaan Baas Kay. Uh-huh. ah alhamdulilah. ndeysaan na ahi doomi ja doomi Adama. Uh-huh. te day jàppale day dimbale. Uh-huh. mais yaat ma. mais yaat ma tey nag sama tey suñu waaji. waaw suñu waaji. suñu moo xewle. Abbas Diadio Abbas Diadio Séeri ay Samb. waaw di ko baax. ay Aïda Samb defal ko surprise. yow muy sa xarit a ngi nii gars yi fi mu nekk nii xam nga ban heure a jot 9h ci fajar. neuf heures a jot neuf ay da Samb wooñu nañu da koo surprise ndékki la ko defal en waaw sa waay ngi nelaw ci biir. Ah, ah, a ngi nelaw mais affaire bu garaaw ah. loolu ñu xëyee rek ñu xëyee rek ñëw war a ndekkee ci kër gi. Ah? gis ñu. waaw war a yeewu daje traiteur yeeg ah. mais surprise bu doy waar ah. li ko waral mooy li ko waral mooy. kooku mooy kooku mooy séeréer ay daal Fatou. jaaju maam mooy rek lu waaye def ci moom rek doyul. wallaay dëgg la mais surprise bi garaaw a daje kii bi ah. man de a xool lu muy dugg. mais ban heure defar li ban heure ngeen li ba quatre heures du matin gars yi ñu ngi place bi muy daanu. fekk mu tëdd di nelaw fekk mu tëdd di nelaw. te yeewoogul nii quoi. yeewoogul jógagul jógagul. les amis de base. mais macha allah macha mon frère. mais mais mais grand ci loo ne mais mais mais mais ñii ñooy ay xaritu Abass Diadio ah ñii. tey nu leen gisee tey birthday bi Aïda Samb ah ni mu ni mu ni mu ni mu grand waaw.